Euh, bi ñu leen signalé li nga xamné mom mo moo xew sama ginaaw euh, muy euh, benn parti bu presque bu soriwul trop Marigoudou mbaw bi mu nek zone humide zone non aedificandi fi nga xamné ne kër waruñu ko sànc fofu def nañu déplacement tay pour constater liñu ñu gis lu naqari la parce que président de la république dafa joxé ay instructions yu lèr nañu arrêté di rambler zone yi nga xamné zone ndox la moy fo xamné nous ndox def fay fay jaar wala ndox ta pour euh, euh, euh, ta pour ñu Le président de la république a joxé ay tegtal yu lèr motax nous ñun ñu war ci def suñu pour que képp ko xamné da gis espace une zone humide zone bi nga xamné dafa am ndox nga bëgg ko pour ñu ko lolu a euh DESCOS def na déplacement brigade de l'environnement ñëw nañu la gendarmerie est là donc je pense que nous allons euh, surveiller continuer à surveiller mais li ñuy njëkk def moy instruction bi que mu reprendre le yi nga xamné déposé di pour mu ko mu dem ci pour mu li nga euh, zone euh, sénégalais ne ku pas. parce que euh, état bi euh, moyen yi def ci li inondation ce qui se passe à Kermassar ce qui se passe dans les autres zones mais si fekké nak dañuy fekk fi wala nga fekk fi nga xam ne ndox ndox dafa doon taa ñu di di mu nekk réceptacle boo xam ne réceptacle ndox la nga daal di koy séq pour def ay kër da ngay indi ay loraange ci population yi da ngay indi loraange euh, nit ñi li nga xam ne moom mooy li ñu gis fii même bu fekkente ne borom dafa am tiitre foncier laa wax warul jëfandikoo zone humide sans ko mu am quitus environnemental fii

di remblayer ay zones yoo xam ne nit waru fa dëkk ñu koy dëkkal ay nit